Accès application Orange Money Banne roulen si njëriñu kalpe Orange Money si lu yon te téléchargez l'application si App Store à Google Play. Orange. Milkana, la force du lait, la force de l'amour. Royal Horizon Baobab, feel free, home. Téléphone 33 939 71 71. Adresse Route des Hôtels, Saumon. Boîte postale 81 Bourg. Sénécar Tour, une nouvelle vision du transport. Virginie remercie ses partenaires, l'Air, Modeste Tower, M60. She be best, They ben aan school, ben je thuis, van ai, ai, maman. salaamaaleykum. maaleykum salaam ah noo dem. ça va yaa ngi ci jàmm. ça sa papa. mi sax mi ngi lay nuyu. ah macha allah loolu xam nga damaa kontaan ci yow ndax dëkk bi fi tos indee ba léegi présenté ma la danga maa jàppee comme yaay ju la jur. te lépp li nga koy defal mu sama nopp yi. kon dama leen ñaan rek yalla na leen yàlla sàmm te sàmm seen ànd loolu rek laay ñaan. amiin waaw loolu daal man kontaan naa si yéen. ana Tachma mi ngi si biir. waaw mi ngi néegam mi ngi néegam te eh? doo ko déccu de. merci beaucoup maman <laughs> merci. ok de rien. tak tak Tach. eh Kati ça va. ça va bien kaay toog kaay

pour cotisation moom t'inquiète même pas waxtaan naa ak sam papa il m'autorise à vous inviter yow ak Windows yaa ngi comprendre xoolal même si petit bonbon sax mën nga ko faa parce qu'on en voit pratiquement jamais dans les hôtels. si yoo xam nga yow nga dëgg kati idée bi nga génne yow bàyyi wu ci sax xel sûrement day dox fofu kay nga deug tangali yi jàll jay jaay day dox fofu non mais kati est-ce que protéger nga idée bi droit d'auteur ak yoy non yóbbu ko sa waaw non lii la. am tâche. non lii la. sama diggante yow ñoo ëpp lii am. non lii duma ko laal. non non vraiment lii duma ko laal quoi non non non non duma ko laal dafa bari non non non non. tey ka tey lii. déedéet déet déet. kati lii bari na nag barke yàlla lii bu ma ko dee def nga maa rey de bàyyi li ñuy def.

Maïcha wax Babs je te jure que j'ai changé Le modèle, le dootuma je te promets. Bah tant mieux alors c'est bien de reconnaître ses erreurs et de les réparer. Babs écoute. Maïcha ne touche pas quoi. Babs allez toi aussi en plus ce camp de vacances ça va nous permettre de se rapprocher. Ça va un peu changer l'ambiance entre nous. Tu peux pas juste dire entrer juste comme ça sur une relation. Allez, donne-moi une chance, s'il te plaît. Maïcha, mets-toi une chose dans ta tête toi et moi c'est fini fii relation amatu fi Et tout fi moi ça et une dernière chose on a la prof EPS bi xamul sax lu mu def. imaginer man dama yàkkamti egg camp de vacances ba loolu moom su ma ko tardé woon damay feebar heureusement ba samay parent bàyyi nañ ma. yow doo nitu fii xam nga li si gën a neex mais secret yi fa nar diggante kat ak suñu bopp de ah, ah waa baana. c'est nga ni ñoom ñaar dañuy gént te nag xam nga lépp bu ñu sonal tàmm nga ay tardé torop nag te suba gajaga nee na bus bi du fi xaar kenn. Sekarang Eu vá. Lá o laki. to Allah gamu wala ma ni wara gisante ini. ajini su yexé légui suma paré mi ni yexé suma paré légui yexé suma ini, légui dina denk may ma terminer OK ya a pas de OK merci jambar foofu da yàgg. waaw ah, mu taal bi ma téye woon. muy gaaw de amul xaar de. yow dañ ci nekk. Ah, amul xaar dossier yi euh, yëpp a ngi ci. ñi war a ñëw ñëpp. xam ah, comme ça yow après di nga xam naka ngay say réservation say affaire yooyu. léegi kii moom mooy visa ci passeport. soo ko amul doo jàll fenn. te bu école bi la cachet wu école bi la.

ndax yi su naree yomb ñu bàyyi ko aha lijjanti xaalis rek laa xam pexeb lijjanti xaalis dow laa xam te fii naa nar a jaaree tekki ba faw ndax ca somon ba lay doon xewee yéen bu yomb taale kili taale bu yomb eh andi leen seen man polisi la andi leen seen man polisi la bëgg nga xam ni vacances yi kat ma ci kafuma ci reetaanuma ci vacances yi bi vacances yi dama ñëw pour dëggal sama bopp ci Virginie carrément kaf sér dama sérieux foowuma kafuma reetaanuma ku moom xolam du man maa moom sama xol ah dama ñëw pour jox ko booy bi rek te kat loolu yow kese yaa ma ci mën a jàppale ok Toch mais si lan laa mën a jàppale si naka en fait yow Virginie di sa xarit sa doomu lay kañ nga nekk njaaga. ok Toch dinaa la jàppale. xaaral ma wala sax nga nga gone gu ndaw ba ga lijjanti lu ay mag yi def. yow man comme ni ma la ko waxee rek lu prix sa mën bokkul du sax benn xam nga fii touriste yi tubaab yi ñëw te tubaab bu gën a ñeme poosam gën a xam lu baax tubaab bracelet combien temps je paye temps je paye mais fii Dakar temps je waxaale temps je waxaale on dañoo am temps boobu te ku ci dof dof ma jaay la bracelet nag naa la nag ma jaay la ma fi dolli jaayal la mante ferees léeg sax ma jaayal la voilà nak c'est exactement ce qu'il faut faire man daf ma leer ni li ngay jaay Dakar lu ko ëpp di ko jaay Somone kenn waxatu ko mais yow mom nekk ci rek mais bu faté ni dossier jini bi ya ko yor de té yow rek la ci yaakar dégg nga concentré wul ci dossier yi yow nekk ci rek Saira Saira There was in class, something white she would best. They can ask when you talk come I, yeah, à toutes et à tous. Bonjour. Et bienvenue au Royal Horizon Baobab de la Somone. Merci. Et je m'en vais euh, vous présenter sommairement notre hôtel euh, qui a 257 mhm. chambres, mhm. réparties ensuite en chambre pieds dans l'eau et en chambres standard, qui ont également une vue sur la mer et d'autres qui ont une vue sur le jardin. On va vous installer au niveau des différentes chambres que, mhm. vous, que vous aurez à occuper durant tout votre séjour. Mhm. Mhm. Voilà. Maintenant, euh, je m'en vais passer la parole à Monsieur Fred qui va faire le dispatching des chambres. Voilà, merci, beaucoup Monsieur Diouf. Donc le dispatching va se faire comme suit. Hein. Chambre 10, Biggie, Toche et Leuze. Chambre 10, hein. Biggie, Toche et Leuze. Chambre 15, Baps, Badara et Nex. Chambre 16, Fatel, Cathy

flashcam teg na school bi ren ay nu jaayim school ba lu koy fay ak lu fi xew kenn mu nekk sama lii moom kàddu àq la man sama xarit yëpp dem nañ man ma toog fii mel ni moo tax bu ndaw di dem am te yow lii lii mooy lan yow na xamul sa problème dégguloo konkon entrée konkon yow la kat ga dégg li ay xar fa xuufa la maanaam ay bain Babi bi neen dem generation foot fo nga defuru ba dëgër pour yow Sadio Mané akum tol ni wa nii waa Bambali dañ ko see seetaan waa mu yor mo dëgër motax rétan sax du ko def jëral li nga sangu oh li mom li mom franchement jaru ko quoi yow ay bien mais ne mais ne xanaa dof lañ may jappé yow mbëri ndaw yi sax def duñ li eh, fi dof yi rek tekki yow yow sa xel bi ak jàng ñu nenn kon ngir yàlla ak yonent bi jëlal sa xel beeg sa xol bi dugal ko si football beeg xar fa xuufa bi te yow booy paa bi dafa bëgg nga def carrière yoo xam nga ne paa bi ndaanaan la woon si football bi te talent bu mu amoon gis na ni yow rek yaa ko war a mën a doon jëlal li nga sangu. waaw yow ma laaj yow li may wax nii yow lu tax defoo ko. bref ah bëggoo di feeñ tele nekk professionnel xale jigéen ñi di wax ma naan la sama frère. Et si c'était bien plus qu'un chewing-gum? Ndiaye bànneex sa soune. dance cool when you touch on I, I, I.